y a des opposants nan ngay apprécier le les les cent premiers jours du régime. alors xam nga histoire cent premiers cent jours ñun dañu tàmm recopier kooku Roosevelt moo ko génne woon dans une situation boo xam ne États-Unis fu mu nekkoon il fallait remettre le pays au travail mu jël engagement ne dinaa mettre dinaa fexe ba nit ñi liggéeyaat ci cent jours ak ay mesures ñu waroon jël sur le plan social sur le plan du travail ñu def ko benn genre. théorie devenu une tradition. déglu rek ñu def ko théorie ba appliquer ko même dans les entreprises avec les gens qu'on nomme et tout tout loolu ça peut se comprendre mais en politique éliruñu leen pour cent jours lañ leen élire pour cinq ans c'est le mandat man affaire u cent jours gawma ko dañ leen élire pour cinq ans ñoom ñu jël engagement ne liñ fi fekkoon ak yoon bi ñu naroon jël du ñu ko jël dañuy def benn rupture systémique ñun li ñuy wooyee changement de cap actuellement commencé nañu ñëw fekk fi benn situation commencé di teg ay mesures yenn saa yi ñu def de très bonnes ñu posé yoo xam ne def ñuy renvoyer à une rupture voilà déjà alalu réew mi ñi ko géré woon ñu def ci ay rapport ñu jël ko ne nii lañ ko géré ne ko fàng ci mbedd bi c'est normal c'est un acte de gouvernance normal noonu lañu yàgg def xam na Sénégal non mais c'est normal ma ne noonu lañu yàgg def Sénégal on est dans la normalité ma ne <laughs> waxuma normal na. publier des rapports loolu. li anormal mooy ñu doon jël rapport yi bañ koo publier. déjà waaye publier des rapports on est dans la normalité amul la mooy rupture bi. yow da nga ñi ko ñi ko daan daaw ñu ko publier dañ ko daan nëbb léegi def nañ c'est clair ñu ne léegi ñun Sénégal sunu ressources naturel yi constitution bi dafa ne sa appartient au peuple on le mettre en œuvre. Sénégal ça n'a jamais été mis en œuvre signé nañ fi contrat Petro-Tim gis nga coow li. ah non ah non. oui non bul fi indi loolu yow tamit. lu tax. non bul fi indi loolu yow tamit. waxal bul fi indi loolu yow tamit. je t'écoute rek moom lay déglu. <laughs> bul fi bul fi convoqué waat. maa ko convoqué xam nga lu tax ma convoqué. déedéet pourquoi du bi ñu koy signé xam nga xam nga kañ lañ ko lañ dossier Petro-Tim. xam nga man j'étais secrétaire général du ministère de l'énergie loolu fàtte nga ko. 2012. déedéet 2009 2009 ba 2012 ñun bi ñu ñëwee ñun lañ njëkk indil dossier Petro-Tim j'étais secrétaire général du ministère boobu ban code pétrolier moo fi nekkoon ñu ne code bi baaxul kenn du signé ñu ne lañu war a certifier sunu réserve ñu ne conditions yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy attribuer contrat yi kenn baaxul on a refusé. on a dit non kenn du ko fi signé conditions yi ñu ko après en janvier ñëpp xam nañ ko ak li ci xew yëpp ressource naturelle sauvegarder ko moom mooy suñu levier essentiel te ñun suñu programme levier de développement levier de financement bi ëpp solo mooy ressource naturelle yi pouvoir bi engagé wu ci commencé ko xool gis nga foncier bi phase d' abord ci non ci ah, dama laaj rek loolu. non ci ressources naturelles yi. waaw ñu fi benn acte. dañ nekk di non ban acte lañ fi posé. posé ñu benn acte. ah état des lieux nga ñëw nga ñëw fekk. ressources naturelles yu ay nit jël. teg ci seen loxo nga ñëw dénoncé ko nga ne loolu xam lu tax ma ne la bul fi convoqué Petro-Tim. Mhm. dafa jur une. grande une grosse confusion et beaucoup de manipulation. C'est-à-dire? Le scandale à éclaté. On s'est interrogé sur les conditions sur les dividendes ak euh, ci ci ci ni ñu ni ñu taxawalee contrat yi mais ñu dugal ci biir ne ngacc nañu patrol bi jaay nañu ko encaissé nañu dix mille milliards il n'en est rien finalement non xaaral rek. ci il non non n'en est rien finalement. non te dañoo confondre la phase d'exploration aujourd'hui ñu ngi ci phase d'exploitation ah, phase d'exploitation bi nag li fi am yépp c'est l'ancien régime a ko def <laughs> Bassirou Diomaye Faye a été euh, dans au niveau Madame, du champ pétrolier je pense c'est pour faire des veux, constats mais il n'y a aucun acte euh, je pense que vous êtes euh, vous êtes très mal informé ah non ils n'ont posé aucun acte ma ne déglu non non les ressources naturelles le foncier. non bul bàyyi bul dem déglu rek déglu rek wax la acte la ñu posé sur les ressources naturelles c'est-à-dire que aujourd'hui l'engagement du pouvoir est-ce que gis nga ñu def fi benn attribution sur les ressources naturelles est-ce que gis nga. mais tout est fait. non tout n'est pas fait on a on a même pas attribué on a attribué que quelques petits blocs au Sénégal. non li fi feeñ et les ressources non. les pêches la non attendez les accords de pêche non attendez madame. il faut pas dévaloriser et c'est ça le problème aujourd'hui les guetteurs de faux pas ils se disent non ñi ñi defuñu fi dara yéen lan ngeen fi defoon yow régime bi nga bokkoon ah lan ngeen fi defoon lu dul nëbb ay rapport signer ay trucs def ay faux documents nga war a signer un décret ah ay ya y' a du faux sur tout et nous on a dénoncé tout ça pendant toute la période de lutte contre le pouvoir ñu dénoncé ko yow nga fekkee ko les rapport de l'OFNAC qui dorment tout ça nga gis ko un régime vient met tout sur la table nga gis malversation yi ni ñu koy defee le le fonds Covid nga gis comment ça fait yëpp nga ñëw mettre tout sur la table nga ne da nga koy poursuivre nga ne loolu du acte. non on est dans la na yow si ngay wax normalité moo tax ma ne la c'est la rupture. si on parle de rupture c'est parce qu'il y avait quelque chose d'anormal il quelque chose d'anormal mais c'est une bonne chose pour la rupture systémique. bien sûr voilà donc loolu on va sauvegarder les ressources naturelles. la modernisation de la justice le rapport vient de sortir la justice investisseurs yi ñëw yëpp li ñu leen njëkk laaj mooy bu ñu ñëwee sa dëkk est-ce que bu amee conflit ça va se régler par une justice est-ce que la justice n'est pas corrompue est-ce que la justice est impartiale kooku c'est un acte fondamental qui est là posé et on même pas on est mois hein on mois. c'est un qui est pondu, qui n'est pas encore mise en œuvre. Mais non, c'est un vœu. Non, le débat, non. Je, bon, <laughs> Moi, je parle Supposons, il arrivera toujours que vœu boobu ñu traduire ko dans la réalité. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, il faut retenir que la volonté de rupture systémique est une motivation extraordinaire pour nous. Si on, suñu buggee def ni ñi fi nekkoon. wala ñu mel ni ñi fi nekkoon jaru ko bu ñu mel ni ñoom bu ñu def ni ñoom te li ñu waneegum mooy meluñu ni ñoom defuñu ni ñoom et loolu dafa dal xel ku mu dalul sa xel nag yaa xam lu tax nga tiit. sur le foncier la moo ci attiré sa attention. alors sur le foncier li ci attiré sama attention mooy que ñoom dañu comprendre ne euh, foncier bi ni ñu ko doon attribué yaa ma neex la woon ñu wone ko ba pare. léegi solution yi day ñëw y a des schémas ñun dans notre livre on a proposé tout un schéma pour le foncier comment naka lañuy ñuy réviser la loi sur le domaine national de 64 naka la ñuy defee un titre foncier agro-industriel naka la ñuy organiser euh, tout avec les domaines tout tout tout la production cette réforme là elle est fondamentale administration gis nga ko on a tout posé on ñu ngi réactiver conseil des ministres bi passé le comité pour faire une grande réforme de l'administration qui est essentielle essentielle administration moom ni ñu ko war a xoolee donc cette euh, transparence boobu ñu poser ko comme acte accepter ko assumer ko publier ko boole ci nit ñi bañ koy waxtaanee ba nit ñi di réclamer cette transparence là ça culturellement c'est extraordinaire yow consultant international nga bi nga nekkee douane bokk nga ci ñi nga xam ne euh, doon nañu doon liggéey avec les autres services de l'État pour améliorer le le le, le climat des des des des des des affaires, au Sénégal. alors li ñu posé acte ci ci foncier bi sénégalais yu bari rafetlu nañu ni ñu arrêté le bradage l'affaire Mbour 4 a été un un un, un gros scandale euh, se passait à côté nous on était. Euh, on, on, on, on on le découvre maintenant mais pour koo xam ne da nga war a veiller euh, ci stabilité au climat des affaires bi da nga war a rassurer les investisseurs est-ce que état incursion bi ni mu ko defee est-ce que noonu la jékki-jékki rek euh, décréter un un un un un, un coup d'arrêt est-ce que amul acte yoo xam ne ñu ngi koy posé mu mën a mu mën a commencer douter douter non non non les investisseurs c'est pas ça le problème non, on est on était sur les principes on pouvait faire mieux et la preuve quand on a évolué gis nga nu ñu def ils ont mis en place une commission et au cas par cas ils font des visites et cetera donc loolu mënul ñàkk kuy liggéey mën nga am ay erreur d'appréciation mën na am ay affaire loolu c'est pas le problème mais loolu ça ne vous interpelle pas mais c'est pour ça que je vous ai dit ce que je vous ai dit mais ça m'interpelle mais parce que moi je travaille avec des des des des investisseurs je travaille avec des gens qui ont besoin de stabilité et tout ça nous interpelle et la preuve tu as vu comment ça été euh, été traité ne vous pressez pas trois mois pour man trois mois nga poser ci des actes da doon laaj ay actes yoo xam ne dafay firndeel que dafa am beneen yoon bu ñu jël loolu ku demul gànnaar sax ah xam nga ne guddi la ñuy reer mais xam nga. Euh, donc loolu moom loolu moom les actes. il y en a en mais xam nga. te domaine boo jël domaine boo jël domaine boo munti jël ci façon bu ñu gouverner soo ko gisee di nga xam ne ñii am na ay changements. xam nga xam nga. c'est des changements ki inquiètent nag mais c'est normal.